tey nag sañse bi boo leen ko gisee parce que mu xew lee Ndeye Mali Maram dëgg la koo fi gënul gënu tey booy anniversaire damaa war a wax da sama yaay daa bàyyi wax kon maa ko war a waxal sama goro bi nga jagal ko nii aw ma sa fay ndax pereñaa la boo ko mënee defar ba mu baax nii sama goro bi xam ne maa bëgg ma bëgg ko dëgg sama doomu ndey dafa leer. dafa doy waar may defar nga ko. fasise fasise fasise fasise. jaa fasise lii du amati. dëgg la. a yéen a fi teggi fasise. yaa ngi nii daf ma indoom. dafa sama goro bi nga xamante ne. sëy na 30 ans macha allah pousse paasu jugul ay bagages am sama goro bu neen da koy joxaat waru gar. lépp ak yàlla ak sa ku bëgg a jël fee. war Fass Cissé. bind maa lay wax ci Fass Cissé. sama doom bi boo ma yebalee ci Fass Cissé ma wax ci moom. dana intéressé day nit ma endo def sama yaay endo def ma maa naar. def ma ko man nii. def ma ko sama goro bu ñaaw bi kenn du yow. ba may ànd ak ngooy du tey te la ma tax xam na ànd ak ngooy ba léegi moo tax ma ànd ak ngooy. dëgg la mu gis góor nit ku baax ko mën nitam. macha allah nga bëgg ko disponible bëgg sama doom ji. Ah. soo ko tiimee suñu xel yi nel. waaw dem bi ba ñeeni la laal ma danga maa laal léegi man maa fipp waaye danga ni ma kaay ma defaral la. kenn la yàlla defal jàmm. amiin xam nga lu ma bëgg nga yàgg fi tawir. amiin jëkkër milliardaire enjoy yow de. Eh. defal lu la saf. fi laa leen sànneeku waaw tey la tey. defal lu la waa sama doom bi nii nga ko def neex na. Euh, ginnaaw bi ma leen nuyoo sant leen gërëm leen mbalee ñu jël ndaare maa ngi souhaité un joyeux anniversaire gudd fan ak wér fas yi seen ndoy Marie Maram nii nga xamante ne euh, foo jaar yoon la loo defa gën loo deful tey ñi la fréquenté ñëpp a jël pee yow koo laal mu am ndam. dëgg la sama baatu baatu asu sama baatu ko ci kaw. dëgg la ajaratu Ngoye Fall ku ko xamul ci réew mi dégg nga ko ku ko déggul ko. ma ne ba tey yaa ko yokk ci réew mi. yaa ko def endo def ma naar. fii ku fi rafet yow ah. dëgg la ñun namuñu Veyde yi si nag yi laay waxoon Veyde yi moo ñëw Sénégal wala naka la fa demee jaafa jaafa si seen ndoy Maalim Maram guddi fan ak wér di kër milliardaire di kër mbër bu dul dóore. amiin ñu fi ndaare. tey la ñu xam sa valeur tey ngay samp sa empreinte ci diggu réew mi yow fas seen doy maali maram dara du nga defoon. léegi ñu ngi koy fàttali waaye sëriñ si am ñu ngi lay bu baax a baax su ma génnee dégg nga di leen dalal ndax wax dëgg yàlla ci kër gi daara la. dëgg la ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam sa taxawaay. Eh, sëñ Askan ñu ngi nuyu. Mm-hmm. di am mbégte ñëw ci kër gi sant maa wax sëriñ Seexu Xaadim Mbacke ñu ko ñu gis ko ci diggante bu gàtt rek ndax ku ne xam ne période màggal moom eh, lépp lépp daanaka xam-xam yi eh, di nuyu soxna si bu baax soxna Ngoy Fall Eh, yow eh, su ko defee loolu ku mu nekk ci sa wet su boobaa foo bëgg àgg. ah Adja Ngoy macha allah laf cat laf cat laf cat ah Ngoy soraxel pomme Adja Ngoy soraxel fraise Adja Ngoy soraxel raisin <laughs> Adja Ngoy jéeg yëpp nga xaarloo dañuy dañuy xaar ba nga romb Adja balaa kenn di takk or alaay balaa kenn di sañse da ngay romb ba pare <laughs> Adja Ngoye ne ni nga def xale yi bugguma ko bugguma yii <laughs> chéri sama nijaay est-ce que na waa Sénégal nga nga wax lu baax rek la ñuy wax ci yow ndax ndax lu tax sa yaay dalaa gërëm nga takkal ko or ba mu fees sa jëkkër gërëm la say doom gërëm la macha allah àndandoo am di jàmm ñëpp daal di lay gërëm li nga sol ngay nga leen di solal ah li nga takk ngoy faal nga leen di takkal ngoy ah li lu baax loo xam rek moom nga leen di diggal digal tubaarkàlla dangaa def sa biir kër ba mu neex def say mbokk ba mu neex kon boo defee ci penc mi dañ koy daal di nangu ajaa ngoy ajaa ngoy ñëppay xaar yi <laughs> ku mer tàmpi ngoy day bégee gi gi ku mer tàmpi ngoy faal day bégee <laughs> waaw waaw nee naa ko sa doomu sa dara tax ñëw dar ko nii macha allah dégg nga li mu la wax ñëw baax ku ñëwaay ñëw neex waaye sa bos bii am na fu mu toll ci moom man sama ñoom mu la def yow kii ku ko ëppal doomam ji bëggal ko ko moom nga ko bëgga moom nga dimbali daa ngëm waaw waaw waaw dama jàpp kii. encore waaw. dama jëloon benn benn benn. kii sama takkal na ma jamaa dese lu ma dara. may suñu la jox na jox na la bopp jox la loos jox la baatam looy wax la wax la sama filtre bu rafet la waaw am na mais sa filtre bu noonu def la ci laay dalee samay waxiin ci laay dalee samay jëfin ak barke Cheikh Salihu man sant yàlla war na ma moom mii ma bindu boole ma ci giiru bani aadama boole ci maag Serigne Salihu jàppandi woon na sunu borom mu def ma mbaam bu am borom buy rot di jaayi pan juróom te dul ma jox Serigne Salihu wala mu

ah man lii jaaxal na ma de. seet te te te te te te. wee pe pe pe pe. Ani mama? Mama? Mama ani pigeon yi. Mama ana jël pigeon yi. maa ko njëkk a lalal. lan la ci jund bi lan ci taar bi. maa ko njëkk a lalal. yéen a xorom set na koy mën a ñëw daal sëb. bëkk nekk la bëkk nekk. bëkk nekk soldat bëkk nekk waaw. Rose.

dal waaye waaw waaw ama ama jële waaye ndaka furi kele Cheikh Saliou Mbacké Mbacké Sëriñ Saliou Salala mu ba jële yama ama jële waaw Gamal gamal Mama xaar ayca tey sa yaram tàng na tey. Mohamed. maman kon lii nga doon waaj boobu ba tey. on est dans moment. waxoon naa leen ko newoon naa leen waxoon naa leen ko. waxoon naa leen ko newoon naa leen bu génn nga xam ne jël. jërë nga jërë nga ma sàmm ah. est-ce que am nga ma sàmm ma fàllu ku ma mbaa sa maam teg la. waaw. ayca tey sa yaram tàng na tey. Mohamed. maman kon lii nga doon waaj boobu ba tey. on est dans moment. waxoon naa leen ko newoon naa leen waxoon naa leen ko. loxo bi loxo bi waxoon naa leen ko newoon naa leen bu génn nga xam ne jël jëriñ jëriñ ma Samba. ah parce que am ma sam ma faal ku ma mbaa ko maam tëgg waaw waaw alamaama jële waaye ndaka mboni xele Cheikh Saliou Mbacké Mbacké Saliou Salela mu ba jële yàlla amaama jële maa ko njëkk a lalal lan la ci jund bi lan ci taar bi maa ko njëkk a lalal yàlla xolam set na dëkk nekk soldat dama ko defee waaw protocole bi am na

ah man lii jaaxal na ma Ani mama. ma jamaa dese ma la jox boobu. waaw ma or takkal na jox na la bopp jox la loos jox la baatam loo wax la wax. dama oh. ma ne Amar laa bëgg damay dem si biir. ci laay dalee samay waxiin ci laay dalee samay jëfin ak barke Cheikh Salihu man sant yàlla war na ma moom mii ma bindu boole ma ci giiru bani aadama boole ci maag Serigne Salihu di woon na sunu borom mu def ma mbaam bu am borom buy rod di jaayi pan juróom te dun ma jox Serigne Salihu wala mu daa ngëm waaw waaw encore macha allah ku bëggee mënoo nee naa ko sa dooma sa dara tax ñëw dar ko nii macha allah dégg nga li mu la wax ñëw baax ku ñëwaay ñëw neexee waaye sama bii am na fu mu toll ci moom man sama ñëw lu mu la def yow kii ku ko ëppal doomam ji bëggal ko ko moom nga ko bëggal moom nga dimbali ma nga ma nga ma nga fële ci cité des eaux waaw waaw di faatu faatu nag di ñaw yàgg am jom jëpp sa robe bu riis c'est ko la ko ñawal kenn yow mbaa sépp droit bu riis Castor sama xar yi ma ne ko gars yi sama bay xam waa xawal gestu tuuti jamaa des koy wane ah waaw ca jamaa bala Yves Saint Laurent de Sac Diamond Watch sakalaay la ka daay man li ma wax rëyoo rëyoo aki korona filay yandoore faati weddu moy wa xam ja jaxate calawaro e, maam jarnoone ko jeru warel mandabale ala daw basugo mbako mbosulo jotaay sugo tay defo dooma tere dunduma ndax sàkkuluma ku lay tere dunduma na fekk ndax yenn saa ni teg la jono te lu nekk ci noflaay soo ko nanga ba mu sonal la yaa ko teg sa bopp waay askan a la bëgg dund sa dund bu leen faal a ñi soxor la ma wax ci de safuma door yi de yëpp ma ndax sama yaramam sa njëkk waaw waaw ay waay doo cosaan sonal yaa ko teg sa bopp waay ma ne defe ko nii ndax bakkan jàmm la bëgg duna sa dund bu faal yenn yi soxor na bari ci mbedd ñu naan la ñafe ko lu ñu la bu amee ci amuloo nit ci la doon ñu ne lu baax la ñu ko saa dugal ka génn di ko lijjanti ñu naan la yow nga ne caaga buñ la tere